mbokk internet yi dalee nag jàmm Diaw Ketchup daal di nañu wax ne dafa daal di nag divorcé ak jabaram ji di at Atla loolee ginnaaw sept mois képp nag bi ñu gisee ne nag ñoom si la daal di nag marié maanaam seen mariage bi lee duré lu dul sept mois kese ndax nag ñoom ñaar ñi ci ay weer yee ñu génn ci biir corona bi sax daanaka moo tax taxoon defuñu woon sax ay cérémonie yoo xam ne dafa grandiose lu dul ñaari famille yi dajaloo daal di nak nag célébré bi li mariage nag alxayri jib ci ñoom ñaar ñi même bu fekkee fekkente ne nag boobaak léegi sax gisuñu woon benn loo xamante ni doon na wane ne nag lii couple la ndax moom Diawké Diop ak Atala mi daawuñu nag affiché wu benn yoon ci réseaux sociaux yi même bu fekkente ne moom Diawké Diop nag nekk humoriste nag nekk nag ku présent lool ci biir réseaux sociaux yi rawatina saay suune ay fansam la ñuy xam ci lu muy nekk ndax li muy di posté nag ay voyage am ak ay ay prix yoo xam ne def koy remporté loolee nag taxoon na ñu bëri ñu ngi doon laajte sax ba xam moom Diawké Diop ak jabaram ji ba xam ñuy nekk tey mujjantal gi sax am ay suspicion yoo xam ne dafa jógoon ne jabar ji dafa daal di nag dem fële ci diwaanu États-Unis moo tax nag lañ koy gis mu ànd ak moom bëriwul ak nu mu ci mënti doon nag démb lañ ko doon rumandaat bi la information wax ko ci nag réseaux sociaux yi ni jaw kii jëpp ak jabaram daal di nañu divorcé ginnaaw sept mois kese yoo xam ne moom nañu daal di dem te lool loolu am na lu ko firndeel ndax tey ji a ci nag compte Instagram am moom mi nga xamante ni mooy ex jabar bu jaw kii jëpp di at la ca compte Instagram la daal di bind même bu fekkente ne en anglais la ko bind ndax nag ñu bëri jot nañoo daal di nag traduire boobu le message daal di koy décortiquer me revoilà devenu célibataire moom mi nga xamante ni moom mooy Atla nag lu ñu mel na bind nag boole ko benn photo dugal ko nag ci compte Instagram am ñëpp xëy gisandoo ko me revoilà devenu célibataire maanaam maa ngi nii nekkaat nag célibataire bu am jom moom Atla mi nga xamante ni nag nee ñu sax ñoom ñaar ñi nag ay mbirum nag fiirange moo leen daal di boole ndax nag ci wàllum téléphone ak nag ay ak nag ay proposition yoo xam ne saay su ne nag ay jeune fille dañ koy defal moom jaww këccëg mi nga xamante ni nag daanaka dafa da sax célèbre nag humour nga xam ne moom la ci daal di def nag di voyager un waaye nag bile nag topp nga xam ne jigéen ñu ngi koy topp yëngal na mariage am ba tax amu jaaree fa naax saay waaye nag ki nga xamante ni moom mooy Atalaade soxnaam sa wóor itam bile séparation nag naqariw ko benn yoon ndax nag message bu mu ba noppi